waaw euh, yokk xëy na mënut a ñàkk ci condition yi nu mel. Mm-hmm. mais aussi exagéré ci aussi dafa dafa dafa jéggi dayo tout euh, parce que souvent loo doon fay par exemple euh, boo jógee woon fii ci jumaa ji wutali garage daaru. saret mm-hmm. yi cent franc nga fay. Mm-hmm. wala nga jógee fii ci jumaa ji wutali fi nga xam ne moo di angle corniche. juma yi suñu cheikh nga waroon a fay cent franc. ñu lay fayeeku deux cent wala trois cent xam nga yooyu te aussi yokk yooyu aussi dafay dafay xaw a jéggi day donte mm-hmm. yoon bi dem beeg dikk bi xaw na am tuuti gàllankoor ndax nit ñi dañuy bari charrette mm-hmm. dañuy bari euh, euh, oto yi dañuy bari dafay xaw am tuuti mm-hmm. gàllankoor waaye li ci am solo daal nañu xam ne euh, li ci am solo mooy bàyyi xel dëkk bi waaw bàyyi xel dëkk bi di xam na ñëpp a bëgg a ñëw te nañu fexe aussi ñu euh, ngi ko yombalalee ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, client yi. Mhm. Euh, Fatou Kara ginnaaw boo jógee ci chauffeur yi yaa ngi woon fan après. ginnaaw ba mu jugee ci chauffeur yi nag dem naa ci borom charrette yi ñoom nag am nañu ñu leen métti trop trop trop parce que ñoom police yi may ñu leen fenn fu ñu jaar fu ñu jaar rek ñu ñu tunda la ñu leen dallu dallu leen te ngeen jugee woon mais dañ leen di karkare <laughs> ma ànd ci sama caméraman waaw ma ànd ci sama caméraman Cheikh Fall kii Papa Sow bu fekkee vidéo bu baax na rek ñu dellu ko te nañ leen ñu war a jaar waaye foo ñu jaar ci yoon yi ndaxte yoon yi moom foo ñu jaar ci yoon yi moom saret yi moom wax dëgg yàlla yoon yi foo ñu jéggi ci yoon yi jéggi doong dem dafa yomb mais duñ la may nga jéggi jéggi doog jéggi jéggi jéggi jàll rek duñ la ko may duñ la wutal fu ñu lay jaar danañ ñëw rek ñëw dina awal la benn mbedd na la awal nii forcément nga aw foofu léegi da ngay wiiree wiiri ba sonn yon dama ma ni dañ ma dañ ma dañ maa teg ne ma awal nii fi ni ne nii fii laa bëgg bëtt ba xam ndax ma jima jall am galankor kay ndax da ngay wara yeb da ngay wara wara am chargement war ko yobbu rapidement ñew chargement bo am tardement ndax da ngay da ngay wiré wiré ba sonn fu ne ngay téggé aw hmm? prix ça dépend rek mo nga am bagage 3000 mo nga am bagage 4000 yoy non mais événement bu ñëwee lépp a yokku moom sareet yi dañuy yokku marchandise mi day yokku lépp a yokku. maagal bee ko waral sareet ay fukki nga war a yëpp. non doo charge si dara moom ba yóbbu fukki nit dem. mais du la am kay waaw cent franc. non police yi moom dañ la du may loolu dañ la may ay ay nga jéggi yooyu parce que jéggi doomu jéem donc dafa yomb certainement ba pare war a jéggi dem nga war a jéggi dem ñu ne la doo doo jéggi dafa metti non doo jotee moom ndax day tax da nga waxe buur moom wàllu sant dangay ngay def li ñu la wax rek boo ko defute ci yow lay metti rek ndax na ñoo tekk say yére yóbbu say say laab sonal la te boobaa yow yaay sonn rek doo am fenn koo ko joytu loolu mooy problème bi ah di wax ñu góorgóorlu rek jéema pour la awal fii nga aw fa xam ne loolu affaire bi moom daanaka jeex na ba pare màggal bi moom daanaka moom li des jeex na ba pare muñ rek xam ne moom affaire yi moom loo loo loo paase weesu ko rek waaw waaw di leen sant di leen gërëm rafetlu seen taxawaay si si li ngeen di def di leen remercier bu baax waaw ñu ngi dox dafa dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax xanaa kay xat-xat yi nga xamante ni moom lañuy ñuy rek ci dëkk bi bu charette gan yi moom dañuy xaw a am ay jafe-jafe tuuti nag euh, dañuy jéem a taloor rek ànd ak ñoom ndànk ci liggéey bi waa ñoo ñoom waa moom seen li ñuy wax bopp sa bopp daal la ñuy def moom wax dëgg yàlla kenn ku ne sa bopp nga fi nga fi nekkal ñi ñëw dañuy ñëw pour liggéey si pour seen bopp rek waaye nag du caagante ne ñoom dañuy ñëw ñu leen di accueillir ñu ñu nekk ak ñun di liggéey seen bopp la ñuy liggéeyal daal waaw ñun tamit suñu bopp la ñuy liggéeyal. léegi prix si pour pour charrette yooyu waaw bu dee màggal gi moom parfois moom charrette dañuy yokk waaye nag charrette mbaay moom li ñu yokk lu ci bëri bëri moom seen prix ci cent franc la yam mais bu dee charrette fas yi yenn saa yi ñu yëpp ay deux cent yooyu. lu mel ni ki jëm gaara si Dakar wala feneen ak feneen daal. ah xat-xat yi yooyu tamit xam nga dëkk moom léeg-léeg nga jël course boo xamante ni pour nga wàcce ko moom problème lay doon da ngay jaar wiiri yoon yu sori xam nga ak embouteillage beeg yooyu parfois yenn saa yi nga jaar route boo xamante ne bii policiers yi dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay tourner daal lool lool lool moo tax. non yoon bi moom yi ñu daan jaar rek naka jekk ci la ñuy jaar mais xam nga euh, yi nga daan jaar bu njëkk bu fi dara xewul bu dara xewee moom. day wiiri wiiri fu ne mu jaar fa. kon te ñoom loo ci xamul ne dañuy jënd ticket chaque mois dañuy jënd ticket 1000 francs. waaw ah. juuti ah, kon kon kon kon d'habitude comme d'habitude euh, chef euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal euh, charrette yi période magal daal dañuy xaw a am jafe-jafe mais seen jafe-jafe majeur mooy li nga xam ne moom mooy police yi. Mhm. police yi di di leen karkarloo mais à part ça daal nee nañ la amuñu benn jafe-jafe. amuñu benn jafe-jafe à part ça mhm. léegi ñoom na problème inondation ñoo taxoon sax ñoom ñu yokk seen prix yi mais ah. avant lañ ko yóbbu avant màggal gi lañ yokk seen prix yi ñoom. Ah, ndax comme euh, chauffeur taxi yi euh, ndax ñoom. Euh, dawalkatu charette charette yi ñu ngi gis seen bopp ci euh, mbir mi. Mhm. waaw ñu ngi gis seen bopp waaw ñu ngi gis euh, seen bopp. Mhm. jotoon nga yëg ci charette ya wala. waaw jotoon naa yëg. kii ñemewul charette. <laughs> ah ñeme naa xoolee Ahmadou Bamba. waaw. Ah, ku ñëw ba Touba te doo yëg charette. mais si nga yëg ci ah, naa toog naa si. ah, ah newoon naa la kay soo demee reportage booy tëj yëgal ci sareet yi waaye. yëg naa si moom yëg naa si moom. waaw yëg naa <laughs> ki ñëw ba ba bërëb bu sell bi doo yëg. mais borom charrette ñoom dañoo baax. mais aussi euh, bi ngay bi ngay waaj a amal interview ak borom charrette yi euh, defe naa ne nanguloon nañ la ko sans problème. waaw am na ku ma ci jotee gis kooku moom nen da cee kontaan sax. Ah, parce que yoon la ñoom ñu xam ah, ah. ñoom ñoom ñu xam lan la ñuy def ci ci ci terrain bi. tout à fait. Mhm. ah c'est bien chapeau à euh, da ngay gis koo xamante ne sax du def dara police bi daa koy jàpp nangu charrette tam takk ko. war duñ leen laajte te duñ ci mën dara dañ leen laaj waaw dañ leen laaj dara moom. Mhm. caay waay. mais nag euh, euh, Alaaji Saturne Ndior mais nag est-ce que tamit euh, Fatkara saytu nga wala rek yaa ngi doon bàyyi xel ci nan la ñuy yabee nit ñi parce que saret moo doon foo xam ne moom ñaan ñu ko yàlla amul barrage benn yoon pour daanu mom bo daanoo mais est-ce que tamit gars yi nekkul ñu di tegle nit ñi ak yoon yi surtout comme niñ ko yoké sen pass yi noonu est-ce que ñu ngi bàyyi xel yoon yeeg ni ki mel ak tegle nit ñeeg yooyu moom bu dul bu dul bu dul magal mom 5 personnes lañu ñu lañu ñu yeb mais magal gi ñëw na mom mooy 10 personnes 10 personnes lañu ñu yeb ak chauffeur bi mi mi 11 mais est-ce que tamit du ëpp léeg les onze yooyu ngay wax loolu laaj naa ko mais am na ñoo bokk ngay gis ëpp na dix laaj na jot na ko la laaj mais am na ñoo xamné duñ ko def ah, duñu duñu si sa

ñoom dañuy jëndi barbar yi barrières yi quoi mooy euh, li ñuy teg di ca teg ban dañ koy dindi. Mhm. da ngay daal di toog euh, langal say tànk mu nekk charme boo xam ne bokk na lii euh, def décoru Touba charrette yi am na solo lool ci dëkk bu sell bi. Mhm. loolu wane na ne nag li nga xam ne mooy magal day faral di contribuer à l'économie di Sénégal mhm. mu nekk loo xam ne nag képp koo xam ne rek ñëw na fi indi sa njaay ah di nga ca mën a gis sa bopp ndax loolu. Euh, bërëb bi mo teddé ni ni mel euh, partout à travers les artères de la cité religieuse yéen a ngi gis ay nit ñu lal di amal sen njaay mu nek lo xamné ne ko xamné rek talal nga ko sa micro de lay firndel né ma ngi gis sama bop ci ni ni mel mm-hmm. kon